tout euh, donc ni nga ko waxee ah bu ñu waxee mbay globalement lu am solo la je dois préciser tout simplement que euh, bu ñu wax agriculture dafa am lu ñu wax l' agriculture au sens large. Mm-hmm. mu jël agriculture pêche ak élevage. d' ailleurs même au niveau africain euh, le programme africain le programme agricole africain noonu lañ ko concevoir muy PDDA programme détaillé du développement de l' agriculture africaine. donc présentement lu ñu mën a wax ñun ci agriculture mooy période bi ñëpp xam nañ ni période hivernage la. Mm. période hivernage nag bu ñu ko waxee toujours xel yi day jëm si lu ñuy wax mise en place. mise en place mooy jiw parce que boo waxee bay premier élément bi ngay wax mooy jiw. jiw semence mooy semence ñëpp xam nañ ni nag également au Sénégal à chaque fois que ñu nekk ci période hivernage. da ngeen di gis mu am ay problème ci jiwu ñu ci wax jiwu bi doy na doyul mm-hmm. baax na baaxul liñ joxe donc période bi ñu nekk li ñu mën a wax ci mbay mi loolu la mooy ñu ngi nekk ci euh, mise en place war a jëm ci session mm-hmm. session mooy seddale jiw bi ginnaaw bi ñu notifica bi ñu defee notification notification yi mooy ñi nga xamante ne ñooy joxe jiw bi ñoom la état jox jiw bi muy ay privé ñu war a mën a dajale seeni stock pour jox ko baykat yi donc foofu mën nañ mën nañ ci xuus nag en mm. fonction question yi ngeen di poser évidemment contexte bi mooy contexte euh, disons tabaski tabaski nag buñ ko waxee dañuy wax tout le temps euh, mbay parce que soble euh, ak pomme ak yi ci mm-hmm. aju yëpp si mm-hmm. agriculture la dépendre. mais maa ngi maa ngi nuy au passage <laughs> au passage doyen Makumba mu nekk directeur de l'horticulture ñu mhm. xam ko vraiment quelqu'un de très pertinent ku xam secteur bi defe naa ne mënuma ci wax mhm. lu mu waxul mais lu mu mën a wax mooy ni Sénégal euh, boo seetee si plan Sénégal émergent axe bi ñuy wax transformation structurelle de l'économie foofu la ñuy inscrire déclinaison agricole politique agricole bi nga xamante ni son excellence Macky Sall moom la defoon si vous vous Euh, PRACAS moo nekkoon euh, volet agricole bu PSE si PRACAS boobu dafa amoon lu ñuy wax autosuffisance alimentaire mm-hmm. léegi nag le problème mooy ni autosuffisance alimentaire boobu ñu doon wax c'est suivant spécu spéculation yoo xamante ne c'était précise te oignon bi ngeen di wax daf ci bokkoon ak riz ça veut tout simplement que le gouvernement du Sénégal avait pro avait promis au Sénégal mmh. sénégalais mm-hmm. que en 2017 que dañuy yore une autosuffisance alimentaire notamment ci spéculation bu ñuy wax riz ak mm-hmm. oignon ak pomme de terre mm-hmm. léegi bu ñu tolloo fii tey ñu ni tabaski yaa euh, euh, quelques jours moo ci des ñuy wax ni am na ay risques ça veut que kon war nañ jàngat pour xam situation boobu fan lañ ci lan moo ko indi tey waruñu woon wax soble manqué na wala dina am ak du am. parce que en 2017 en réalité la ñu waroon am autosuffisance en oignon. maintenant certainement je sais pas si docteur Macoumba évoqué na ko mais autosuffisance en riz en en oignon plutôt pour moi am nañ ko en termes de production de volume de production. Sénégal am na capacité mun a produire loo xamante ni dinañ am autosuffisance en oignon maanaam. Mhm. ñuy bayal. suñu bopp oignon boo xamante ni dina mën a jël suñuy demande yépp si wàllu oño mm. mais problème bi ñu am te ça a toujours le problème mooy dañu am problème de stockage parce que oignon pomme de terre c'est des produits périssables. Mm-hmm. maanaam nekkul loo xamante ni da nga koy jël boo ko boo ko bayee mën nga ko teg ni à l'air libre muy continuer comme riz xam nga riz tey mën nga ko stocker. Euh, ci port bi mu def fa ay at du yàqu oignon nekkul loolu donc li ñu war a développer pour génn ci système bi avec évidemment régulation bi nga xamante ni am na avec le ministère du commerce et là aussi je dois préciser que agriculture dafa nekk comme li nga doon wax sànq transversalité transversalité mu ngi dugg ci tey xam nga des fois nga gis ñu ni baykat yi oignon bi tuuru na mhm. da nga koy dégg mhm. mais tey bu ñu amoon ay capacité de stockage yu leen di permettre loolu xam ni tey dañ koy sànni wala ñu koy bazarder wala ñu koy euh, wala muy nëb bu ñu amoon capacité de stockage bi nga xamante ni mois yi passé xëy na oignon boobu surplus boobu doon yàqu mun nañ ko denc foon fenn kon bu ñu yegsee ci période bi du seer parce que la loi de l'offre et la demande mooy loolu moom dans tous les secteurs c'est valable que ça soit agriculture que ça soit pêche que ça soit secteur bu mu mën di nekk la loi de l'offre et la demande mooy am s'y maintenant loolu ngeen di wax mën a nekk loolu nag sera relève du contrôle l'état wax nañ ni. Euh, à travers le ministère di commerce euh, teg nañ ay mécanismes pour di mën a contrôler le marché. Mm-hmm. pour que euh, les commerçants di bañ a def lu ñuy wax spéculation mooy jël benn produit denc ko euh, ba mu mel ni créer benn. benn benn manque artificiel. pour maintenant jaayee ko lu gën a cher en tout cas euh, grosso modo li mu mën a wax ci ci ci ci oignon bi. par rapport au contexte de la tabaski loolu laa si mën a wax.